salaamaaleykum mbokk yi donc may ñëw juste di leeral ci benn euh, doxin bu bees boo xam ne moom la ñu jël ci wàllu ñi nga xam ne euh, dañu jóge bitim réew di ñibbi si Sénégal suñu mbokk yi nga xam ne ñoo jóge bitim réew di ñibbi Sénégal ak ñi nga xam ne mooy ñu ñaan contact ñi nga xam ne dañu taxaloon ak ñi nga xam ne dañu am feebar bi. ci ñi nga xam ne dañuy tukki léegi di ñëw euh, dootuñu leen jël yóbbu leen ci hôtel parce que comme gis ngeen nii fi mu nekk nii feebar bi mi ngi law euh, maladie ñi ngi bari te euh, suñu hôpitaux yi seen capacité mi ngi commencé dépassé ba léegi joxoon amoon nañ ndigal si suñu kilifa ministre de la santé pour ñu commencé jël maladie feneen foo xam ne du hôpital donc day nekk ay bërëb yoo xam ne dañu koy defar. Euh, ba nga xam ne ñi nga xam ne am nañu feebar bi dinañ leen fa mën a jël en charge te ni mu waree lañ koy def parce que dañ fay yóbbu waa kër docteur yi yóbbu fa ambulance ba nga xam ne dinañ leen faj ni mu gënee. donc ba tax na léegi bërëb yooyu dañu bëgg nga xam ne rek ñoo am feebar bi ñu yóbbu leen fa donc ci wàllu aussi hôtel yi nga xam ne moom leen doon jël di fa yóbbu contact yi dañu bëgg léegi plutôt ñu yóbbu fa ñi nga xam ne malade lañu mu nekk yooyu aussi ay site de prise en charge extra euh, hospitalier donc léegi ñi nga xam ne dañuy tukki di ñëw si dëkk bi aéroport dañ leen fay xool bu ñu xoolee xool seen température laaj leen jël seen ay euh, référence yëpp seen tour ak fu ñu dëkk seen téléphone bu fekkee koo xam ne amul benn mandarga sa yaram ci feebar bi dañ la bàyyi nga dem sa kër ku fekkee nag am nga màndarga feebar bi ci yaram bi dinañ la jël foofu defal la prélèvement testé la soo amee feebar bi nag foofu lañ lay jëlee yóbbu la ci suñu euh, hôpital pour ñu mën la jël en charge ñeneen ñi nga xam ne nag amuñu benn mandarga seen hôpital seen seen yaram ñooñu dañu leen bàyyi ñu dellu seen kër ñu nekk ñu nekk fa tëju fa lu mat euh, fukki fan ak ñeent. donc loolu mi ngi indi nii nit yi foog ñu am sens de responsabilité ba nga xam ne dinañu mun a bu ñu delloo seen kër sol seen masque jël en tout cas jumtukaay yi nga xam ne yëpp ñu ngi koy digle. ci wàllu sol masque ci wàllu raxas loxo bi ci wàllu aussi sorianto bi ba nga xam ne du ñu am benn problème en sachant aussi que ñoom bu ñu demee bu ñu amee aussi benn problème am nañ ay numéro téléphone yu ñu leen di jox yoo xam ne dinañ woo waa kër docteur boo amee jafe-jafe rek ñu ñëw euh, jël si leen. ci wàllu contact yi aussi mooy ñi nga xam ne dañuy tax euh, ñi nga xam ne ñoo am feebar bi ñu aussi ci njëlbeen ba dañ leen daan bàyyi seen kër ñu dem ba ci kanam ñu leen di jël di leen yóbbu euh, ci hôtel yi. léegi dañ leen di bàyyi ñu dellu seen kër tamit parce que aussi comme ni ma wax rek dañu soxla ay lal te lal yi ci euh, hôtel yi lañ ko mën a amee parce que hôpital bi dañu bëgg hôpital mën a continuer parce que du mbas bi rek moo fi am am na yeneen feebar te mënuñu jël lalu hôpital yëpp di ko def lalu pour euh, Covid 19 bi. donc contact yooyu aussi léegi dañ leen di confiner seen kër dañuy toog seen kër ñu leen fay suivre comme ni ñu ko doon defee ci njëlbeen ba équipe yi di leen nemmeeku képp ku ci am aussi jafe-jafe mu mën a woo les euh, cellules d'alerte bi pour ñu mun leen ñëw jël en charge donc loolu mooy li nga xam ne moom la ñu la ñu ministre ministère de la santé ci ñu njiitu ministre de la santé jël décision ci la ñu war a donc muy wane ni aujourd'hui communauté bi dafa war a am responsabilité ci ci wàllu xeex war Euh, du ay mesure médicale c'est-à-dire du waa kër docteur fi mu ñoo mën a tee feebar nit yi ñoo ko mën a tee donc il faut que aujourd'hui ñooñu nga xam ne dañ leen di confiner seen kër ñooñu nga xam ne bu ñu jógee seen seen tukki ñëw seen kër il faut que ñu respecter mesures yi loolu dafa am solo bu baax a baax et ñañu xam ne aussi ñu ngi dispositif mi ngi en place pour képp koo xam ne am nga jafe-jafe am na loo soxla soxlawul ngay ñëw hôpital da ngay woote pour ñu ñëw euh, jël en charge. et di rappeler aussi ni que am na gox yoo xam ne déjà commencé nañ fa jël ay malades yoo xam ne du woon ay hôpital. mooy Guéréw am nañ fa ay euh, malade yu fa nekk mooy ci euh, angaaru aéroport Léopold Sédar Senghor foofu ñaar yooyu presque suñu site yooyu yëpp fees na ci région yi aussi Bambey am nañ fa benn centre de réinsertion sociale boo xam ne am na fa ay malade yu fa nekk également Sédhiou am na benn centre boo xam ne ibbi nañ fa aussi ay malade ñu ngi fa donc pour wax nii rek même ci yeneen gox yi loolu la ñu bëgg a def ba nga xam ne Euh, dinañ am assez de lal yu bari pour mën jël en ñi nga xam ne ñoo am feebar donc focus bi day day nekk ci ñi nga xam ne ñoo am feebar mais li ñuy dalal xel bi rek mooy ñoo ñu nekk ci bërëb yooyu ay waa kër docteur ñi ngi fa guddeeg bëccëg fa la ñuy fanaan dañu am ay ambulance yu fa nekk lépp lu ci war ci wàllu faj bi danañ ko fa def nu mu gën a ware maa ngi leen di gërëm di leen sant